Uh-huh. parce que nag foofu ca tribunal Adji Sarr euh, génne nañ benn photo daal di ko koy wan uh-huh. boobu noonu sax la bañoon du tontu ba nekkee euh, avocat Sonko bi naan ko yow euh, Pastef nga bokk parce que dañ ko wan benn photo di ko laaj ba xam-xam nga kii uh-huh. kooku noonu mooy Max te Max moom noonu moom ak Adji Sarr dañ doon génn génn bu yàgg ndax Adji Sarr dañ ko wax mu ne Ousmane Sonko moo ko violé dafa vierge et te ñëpp xam nañ ne Adji Sarr bi muy dem di liggéey ci euh, Sweet Beauté Adji Sarr elle n'était pas vierge du coup comme maay toppkatu kaa topp nañ kaa bi max boobu noonu Liberté la lay liggéey fa lay jaay téléphone te max boobu noonu ah, gis nga bijou dinañu woon foto bi moom amoon na am na doom ak ki nga xam ne mooy Adji Sarr ci lu nit ñi yëgut ah, on nag topp nga kaa bi nag. mu nekk nii kaa bi topp nga ko bu baax a baax waaw euh, comme ni nga ko waxee euh, concernant Max boobu noonu. Mm. gis nañ ne que si jour confrontation. gis nga yaa ngi euh, gis Max a ngi noonu Adji Sarr boo gisee photo bi da ngay gis biir bi. Ah, noonu moo nekk nii moo nekk noonu moo Max. Ah, am nga li yàgg na. waaw parce que comme ni ma la waxee waxee si confrontation bi il paraît que maître Bamba Cissé. Mm-hmm. moom moo wan Adji Sarr photo Max boobu noonu. Mm-hmm. léegi nag nee nañu que Adji Sarr moment boobu elle a été muette. par la mm-hmm. suite nag si la commencé na. ni euh, ne ce sont pas des avocats c'est des partisans de Ousmane Sonko mhm. donc je pense que nek n'est lo xam ne moo gis nga nit lepp loy wax rek nay mhm. parce que mhm. bis dina ñëw dëgg bi feeñ mhm. donc euh, ni euh, ce sont que des preuves concernant les propos de Adji Sarr xam nga mhm. ñëw na fi euh, enceinte mhm. na ak ak donc vraiment war nañ ko xolaat war nañ ko gëna gëstu et yow tamit ci côté bobu di rafetlu liggéey bi ngay def mhm. ak ah, eh, information yi nga xamné yaa ngi jëli xana ñu bayyi la nga gën ñu wax rek ci côté bobu non parce que parce que aji sar biñ ko lajé tontuul jigu ñom dañ doon xaar

du deug ndax day wax tay mu faté té comme limay wax chaque jour lépp loy wax lu jara a xel parce que nit yi ñoo lay génne comme limay wax amna lo xamné da lay top bu sa biir bàmmeel mhm. du coup preuve yi nii ak jëf yi nga xamné ne Adji Sarr moom la nekk di def da koy top di ko nit ñi instant yi dañuy commencer di gëstu di mhm. parce que sank rek ma ngi gis ñuy benn vidéo ñuy gi wane vidéo Adji Sarr ak benn benn ex copain am tu mhm. vois kon ça veut dire que nit yi instant yi ñu ngi nekk di sour ci ci ci viwu Adji Sarr pour génnee li nga xamné moy vérité bi pour aduna xamné carrément que Adji Sarr lépp lu muy wax nekkul à t'entendre parler, euh, de femmes que, que d'un coup, on dit, on va piège. Mhm je vais pas dire que Danou, euh, euh na si mais euh, peut-être que si côté <laughs> boobu non, elle a été vigilante moo tax uh-huh. mu am euh, réaction boobu non. donc uh-huh. je pense que nek na lo xamné on a maa koy répété waat une fois nit il faut toujours penser au futur mm-hmm. c'est très important Légui nak fumu nek ni nii y a les preuves qui tombent mm-hmm. qui tombent plutôt mm-hmm. jot jël na ay kàddu wax ko fi jëmale ko si Ousmane Sonko. Uh-huh. concernant son passé nee mom musul xam góor ak yenen ak yenen donc tey en plus yaa ngi nekk naan euh, il paraît que sax am na doom on a loolu moom nekk na vraiment euh, information bu xaw a doy waar la noonu parce que xamuñu ko woon. yaay kaar bi duma ko topp parce maximum dinaa dem ba Liberté di ko wëri ji de comme jaaykat téléphone.